it di am mbégte bu baax a baax a baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci kat appuis TV waaye tey nag mbokk yi dañoo dalal kilifa gu baax kilifa goo xamante ne dootuñu ko présenté sénégalais mu di sëriñ Diass bu Touré borom leer yi eh, borom leer yi nag tey ñu dalal ko fas yéene waxtaan ak moom ci xam-xam eh, waaye nag rawatina li nga xamante ne nag moo di aajo doomu aadama yi cheikh bi amat nañ mbégte eh, dalal la ñu bàyyi rek nga ndoog mbokk internet yi naam ni ma koy waxee xam-xam bi la suñu borom dénk yàgg nga ko waaye ñemewoo wala buggoo génn ci li nga xamante ne moo di écran waaye jamono ji nag Euh, dafa jot ngir nga jàkkaarloog askan bi ci li nga xamante ne suñu borom dénk na la ko nga séddoo ko ak ñoom euh, nañ la bu baax bàyyi la rek nga doy ko bokk internet yi. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim si hasidin ma sharri yàlla wa sharri shihri wa sharri xalqi insihumo mahjinihim wa suwaati sum yi asalaamaaleykum wa maa ngi leen di nuyu euh, seen di nuyu waa site bi ñëpp di jiital ci nuyu nuyoo bi xalif général des Mourides Cheikh Mahmoudul Mountakha Bachir ak mboolem xalif généraux yëpp di leen ñaanal saa defal leen fanu gudd ak jàmm ak tawféex di nuyu waa réew mi ak waa bitim réew ba ki ñuy tëdd ci lalu hôpital yi ñëpp bàyyiwuñu kenn. macha allah mi kàddu nuyooyu ama am solo waaye comme ni ma koy faral di waxee rek bu ñu nee ñaan ñaan dafa am buntu buntu ñaan nag eh, kenn du ko wax tëpp li nga xamante ni moo di seet seet nag nga toll ci fu doy waar foo xamante ni eh, li nga ciy jëflanteek askan wi am na solo sëriñ bi ci seet lan nga ñu si mën a tënk. jërëjëf seet moom dana ñëwaat li alxuraan waatul bu yooti min abwaabiha mbir mu mën doon rek des ko jaar ci buntu ba. Mm-hmm. buntub ñaan mooy seet nit ki mënoo koo ñaanal te seetaloo ko. te nag ñun yàlla dafa dogal ne suñ dara génnal alxuraan ci al ci alxuraan la ñu seete seetu ñu lenn lenn lenn lenn lu alxuraanul karim suñ lépp ci alxuraan la euh, kon nit ki mënu koo ñaanal mënoo jël benn engagement ci moom te seetaloo ko bañ nga sax soo demoon hôpital li na njëkk def mooy seetal la xool ba xam feebar bi la mais duñ tëb tëb la ay bindal la ay comprimés soit nangam ak nangam kon lépp lu nit di def rek dafa am buntu buñ ko war a jaare te seet moom suñ borom dañ fee may may goo xam ne ñu fi ku yàlla bind dinañ seetal nit sax ba wax ay mbiram bu jàpp ne dañ koo xam soit nit a ñëw ci ñun maanaam wax ñu ay mbiram. Mhm. fekk xam-xam bu ñu suñu borom defal la. waaw ginnaaw bi nga xamante ne bii nag jàng nan ko. Mhm. tërbiyu euh, at at ñi nekk fii. dafa am loo nag dañ ko doon mhm. waaw. waaw waaye nag cheikh bi dinaa taxaw ak yow tuuti fi nga xamante ne nag foofu la jamono toll ci yàqante bi ak defante lu ñaaw waaye suñu borom indi la indi solution bi nga xamante ne moo di xombum kaaraange gi ndax fu mu toll jamono toll moom kaaraange war na ku ne. jërëjëf jamono ji nit ñi danoo toll foo xam ne sa loxo ndeyjoor sax pour mu wóolu sa loxo càmmoñ diggante ñaar ñi bokk ndey ak baay dana yàqante. ñaari wuj gi dana yàqante. Euh, yàqanti moom fépp la kon nit ki dafa war ñàkk boppam gis nga suñ borom ni bind doomu aadama mm. làmmin bañ da koo ñàkk tuñ ñag ko gis nga nit ki daa war di ñagu nit ki daa war di aaru aar ak njabootam protège leen te it kaaraange mooy lépp ndax nit ñu ko bëriwul ñu bëri dal ci sa kaw ba tax na uh, am naa fi xoob boo benn chaîne boo xam ne xoob boo xam ne képp koo xamante ne bii na takk nga ko wallaahi naasim amul kudut kudut suñ borom subhaanahu wa taala munu ci yow dara waaw ku uh, dugal ko ci mbën dara ñaari bi am na ndomb goo xamante ne soo xasee takk fu neex ci àddina bi tourneel nit mënu ci yow dara waaw ndomb gi nag tëlan ngay boobee di nga te nit te jinne te góor te jigéen te soytaane lii la ko wax lam lamutuma ci wàllu kaaraange dama li ma la jotu wax nii moom xëy na euh, bañ a jël a bañ a jël temps mais xajut ci ay émission waaw ndax man yoruma yëf yi gone yëf yi mag laa yor te lépp ci alxuraan laa koy def waaye jamono tolloon na foo xamante ni sëriñ bi génnoon nga ab xaal jàkkaarloog ndaw yi nga xamante ne ñooy jël gaal gi ne leen nañ ñu baal gél ga géej gi te ñëw ma dimbal leen wàllum papier yaa ngi ci liggéey lu am solo ko xam ba nga xamante ni eh, ñi nga ci jot a ñëpp ku ci ne ngi sant ndax mbégte gi nga xamante ne am na ko ci eh, wàllum papier cheikh bi lan nga ci leeral mbokk yi nga xamante ne ñoo ko yittewoo te jaar fu ne loolu dañ ciy santaat bu baax dañ ci sant suñu borom bu baax a baax tax xam ne ñun moom duna leen na mm-hmm. lépp mayu ko suñu borom la su xasee génn suñu jëmm yi amatu na dara loolu lépp nag maanaam loolu nu suñu borom defal la ci wàllu papier ndax làmmiñ way ñaan yàlla di ko nangu kenn xamu ko ñin ëpp ci nit ñi jëflante wala ñi ci mat ay seede mu surtout moo ñi nekk bitim réew waaw ñi nekk bitim réew moom xam nañ kan mooy Serigne Diass Matouré ak ni mu jëflante nit ci ci ci ci ci kayit xay na sax. def dara bëgg a jël téemo témoignage ci si bopp mënut a nekk nit ñee ko waroon a def waaye day loo xam ne dañ ko yéene doomu aadama yi ngir bëgg leen a laabire mhm. su ma soyoon nag ñiy dem ci gaal gi mhm. am na yoon wu a gaaw gis nga wàllu kayit yi mhm. wallahi alacim képp koo xamante ne bii ne jëflante nan fi ngay lijjanti wàllu kayit ak fu man di doon incha allahu rabbi suñ jëflante suñu borom di defal tawfiix waaw tëgguma sama bopp nag képp koo xamante ne bi jàppee damay tagg te man li ma ëppal solo ëppal mi eh, amal ma intérêt muy sama xam-xam bii waaw jëndu ma ci kenn woowu ci kenn ku yàlla nar a defal say mbir di nga ma xam ku yàlla nur defal say mbir biir dooma xam sax ba may woo loolu di kàddu yu am solo ba tey si dalal bi ñu dalal Serigne Diass Touré borom leer waaye nag cheikh bi euh, du ñàkk nag ma ñëw ci li nga xamante ne nag moo di doy waar li tax ma tuddee ko doy waar moo di fi nga xamante ne foofu nga jëlee ñi amoon njàqare ci biir néegu sëy yi di garabu kattan bi nga xamante ni man maa ko tuddee doy waar ndax euh, résultat yi nga xamante ne ñit ñi jël nañ ko jaaraat ci man sant la jërëjëf deen ci sawar bu baax di euh, di ñëwaat ci mm-hmm. ku ko xamul dégg nga ko mm-hmm. jamono jii danoo toll foo xam ne nit ñëpp dañu jàmbat néew kattan awra nag sidit la goo xam ne day dellu am na ñoo xam ne problème ndox la am am na ñoo xam ne gaaw a daanu moo seen problème mais bu muy si ñett yi ku jëfi ku jël biti bi butéel bi incha allah rabbi mhm. di nga moom ba fii ngay faatu su la neexee takkal cinquante jabar da ngay ci ñoom force hmm? néeg bu la neex fanaan néeg bu doon neex fanaan lii maa la ko wax te it lépp nag ci alxuraan lan ko moo ñaale ñun duñ def lu dul alxuraan duñ def lu dul alxuraan mm-hmm. ñaare bi tam koo xamante ne bi ne dafa judduwaale mm-hmm. maanaam euh, ni ñu ko waxee maanaam def maanaam nekkut góor nga xam ne yëgul boppam fenn da ko judduwaale mm-hmm. su ñëwee ci ñun ñu faj ko hmm? te bokkut ak butéel bi kii moom ci kàttan lay dox ba tey ñaar yi da doon nuróo tam te bokkuñu kii maanaam da koo judduwaale maanaam dafay yoom dafa tële kooku dañ koy faj ci waneen yoon amutul ci moom yaakaar dañ koy faj incha allahu rabbi kii nag moom dafa néew kàttan suwaat mën a yoom néew suwaat awraam dellu tuuti jooni jooneen incha allahu rabbi waaw lii moom du ma gi deltuwaat ginnaaw sax waaw ci li nga xamante ne nag foog ma taxaw ci euh, koy euh, da nga cee mel ni sax cheikh bi ku naagu ndax résultat yi nga xamante ne yaa ko ci génne euh, ku ñëw sant ku ñëwaat sant muy nopp gu doy waar gi nga xamante ne yor nga ko euh, ci fas gi cheikh bi nopp googu lan nga ñu ciy wax. nopp gi moom. Mm-hmm. dama ciy sawar juróom-ñaari fas-fas la te ci ñeenti xibla laa koy laa koy laa koy laa koy laa koy def nopp gi moom waxuma la biir réew mi moom dafa miin bitim réew waaw ndax jamono jii mm-hmm. nit tukki na bàyyi fi jabar. ni tukki ne bàyyi fa jabar wala sax jabar tukki bàyyi fa jëkkër mm-hmm. am ko ko wuur ci ginnaawam gis nga jigéen mm-hmm. da nga koy ñag góor mm-hmm. jigéen da koo war a ñag ndax soo yoree li gën ci yow nga fexe ba foqatu ci loxo yi bari fexeel ba ëllëg ba la ko kenn yàqal bari waa na ñu fi ñeent doom yun jurut bari waa na ñoo xam ñi ngi Sénégal gii demuñu fenn fu nu xëyee góor wuutu leen seen ginnaaw kon noob gii nit ki da nga koo war a noob ba mu yem ci yow maanaam xel mi day nekk ci yow tout le mhm. gis nga lii waxuma la nit ak nit mais xaj moos ñëpp xam nañ ne ay noonu la su ma su ma leen ko defaloon. Mhm. ñu toppante. ah lii moom firnde firnde yi wóor naññi. Mhm. ak wóolu sama bopp te dootuma ko dellu ginnaaw. waaw xaj ak moos su ma defoon ñu toppante sëkkantuma nag nit ak nit waaye nag du ma ko defal ku nekku cib sëy moo xam góor moo xam jigéen ñu nekk ci sëy rek laa am droit defal ko tey ndigal loolu laaj ci am itam. waaw caaxaan yi daa bëri te man doxuma ci caaxaan mm-hmm. waaw doxuma ci caaxaan waaw damaa ñëw gis tappal yi bëri yii rek may ne mais man doxuma ci caaxaan mm-hmm. sama lépp fu leer nañ laa ko teg mm-hmm. lii daal képp ku ko am moo xam góor moo xam jigéen sa diggante ki la yàlla booleel wallaay naasim doo ko li may laaj sëriñ bi yaakaar naa ni sénégalais yi xam nañ la ñu yàgg jëflanteeg yow xam nañ la waaye pourquoi nga toog tey def choix jàkkaarloog sénégalais ci kanamu écran bi tappale yi tappale ci boppam moo bëri dafa bari waa na ñoo xam ne danoo jug di lekk xaalisu nit ñi bëri waa na ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo xam ne ñi ngi ñaan te xamuñu yoon wa seen seen seen seen poste rek moo seen poste rek lan fi nekkal noonu la bëri itam ci client yi nga xamante ne bii ne dañuy wóob sëriñ ñu jëflante ak ñoom ba leen ba leen bëggoon ñu gis ko ñu koy xëy waru leen comme que tapp yi nag bari nan te ñun saa borom dañoo jaarale fi ñu war a jaarale ginnaaw bu ñu juddoo jàngat nañ ñu yar nañu tërbiyu nañ ñu ñu génnaa dem gëstu ji ko ba xam ko kon waxtu wu ne danoo war a ñëw fii di laabire ak doomu aadama yi ndax sunu njariñ sunu dund mooy jël lépp jaamoo ko yàlla ci jaamu yàlla yi te dara bi su nag lii ñuy def ñu tànn leen fi muy alxuraanul karim waaw lii rek a tax ñu génn ci ci ci ci ikra bi xam ne tappalee bari na réew mi jaxasoo na ngir bëgg dimbali jaam yaay rek waaye du la leen képp koo xamante ne bii da ngaa jàpp ne tax ñu wax man koo téye te xam ne ñun moom saa borom teral nañu ci lépp macha allah loolu di kàddu yu ama am solo waaye nag beneen njëriñ loo xamante ne indiwaat nga ko ci askan wi ndax bu ñu xoolee yenn xeet yi nga xamante ne lu ci mel ni wàllum tux lu ci mel ni wàllum naan bëri na ndaw yoo xamante ne looloo yàq seen àdduna waaye bi nga ñëwee la solution am ci ña nga xamante ne ñoo doon jëfandikoo mbir yooyu noonu ba euh, képp koo xamante ne loolu nekk na sa problème euh, ñëwal seet ki nga xamante ne moo di Serigne Diaz bu Touré. waaw jërëjëf loolu moom dama ci dama ci dama ci dama ci sawar mm-hmm. xam nga jooni jooni jooni jooni mooy gis nga kii tox wala kii naan. te bëgg ko bàyyi ñëw nii nga sukkee sama kanam nii mu sukkee ko noonu ki sama kanam. suy génn néeg bi di ko bàyyi. jooni jooni incha allah rabbi su ma ko defee dama koy defal. Mm-hmm. ba mu jëfandikoo bis boobu lay tàqalikoo ak moom. kiy tox wala muy naan. Mm-hmm. ak ku di doon. Mm-hmm. ak ku la mën di jur. ak ak foo mën di dëkk itam. soo ñëwee nii nga toogee nii den ak man su ma defee ci yow may li may def ci yow incha allah rabbi booba nga koy mujj def waaw lii moom lii moom doo ko waaw te lu wér la itam te fu laa ko teg hmm? waaw. ak foo mën ak at yow mënti toog bis boo paree pour jàkkaarloog ko nga ak moom. ki am cent treize ans. Hmm. wala ki am un wala ki am trois waa ci waxin ci léegi. ñoo ngi sax du ko def. ak comme man di doon. Hmm. soo ko dee def su ñëwee fii den ko tàqaleeg moom. incha allahu rabbi lii maa ko wax. Mm-hmm. macha allah cheikh bi euh, damay faral di waxtaan ak yow ci li nga xamante ni moo di téléphone xam naa ci loolu laay taxaw tuuti tëjee nga am kàddu yow ma yëkkatiloon euh, ci li nga xamante ni euh, moo di combat Modou Lo Ama waaye balaa ma cee dugg sama xel xawoon na cee génn tuuti muy lii nga xamante ni nag yaakaar naa ne njëriñ li mu lamboo ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ay jafe-jafe ci nit te na loolu lan nga may leeralal ci mbir mi cheikh. gis nga lii. Mm-hmm. su xasee jàpp dootul bàyyi ci noom lay dox gis nga noom moom noom moom dama fee ñëwat ku yàlla bind. gëstu xam-xam ñëw. ak am ko ak xam ko ak xam nañ ko def xam yoon wa. Hmm. ñëw ku yàlla bind. Ah, gis nga lii su xasee jàpp dootul bàyyi. Hmm. moo xam ci yére la moo xam ci karaw la fu mu xas tëyee dootul bàyyi. Hmm. képp koo xamante ne bii ne am nga ndimbalul sama boroom ba xam ma. ban jëfrante ma noobal la ak koo bëgg ñu noobal la ko ci kaw nag ngeen dencante xala kulli haalin laaj nga lu leen tàqale bàmbeel lii maa la ko wax mhm. ak ku man di doon moo xam da ngaa nekk fii sa jëkkër nekk Europe ak ku man di doon mhm. ak ku man di doon incha allah rabbi bàmba leen tàqale diggante mu neexoon neexatut mhm. ngay wax ak moom xolam di gaaw a tàng ak nu sëy bi yëngoo ak ak lu ko su ma la ko defee di nga bég ci nopp dama ciy cité yii nag dama ci cité yii rek mhm. mais li ma fi li ma fi li ma fi li ma fi liggéey moom xëy xëyut ci émission waaw gis nga kii moom mhm. damay sawar da ci di ci wax ndax dama ko waaw ndax dama dama ko dama ko dama dama ko kii daal waaw waaw waaw dafa bëri loolu yëpp yëpp sax mais bi bi moom dama ko fan lool sax mhm. waaw dama ko fan lool mhm. waaw macha allah loolu am na solo waaye nag euh, ngi doon génn ci duñ ko duñ ko liggéey nii nag moom dama ko présente nii rek mais lan koy war lan koy war a mooñaale mhm. ban mën koo jëfandikoo la muy àndal code la ah <laughs> loolu moom dëgg la ndax pirate kat yi moom ñu toog di pirate dañoo bari waaye nag euh, sama xel génnoon na ci ci njëriñ yi nga xamante ni lamboo na ko muy jaaro yu am solo yi nga xamante ni euh, da koy faral di wax ku yàlla na la dimbali rek yàlla nga am ci jaaro yi lu tax ngay wax loolu. dama xam li ma yor xam li ma am. xam njëriñ bi. gis nga waxoon léegi ku yàlla nurtu ku yàlla nurtu dimbali. du am ci samay jaaro. yi ma joxe man nag laa wax. Mhm. man nga am jaar bu la neex. mais man yii may joxe. Mhm. xam lim làmmool mhm. doo ci am. ak ku man di lii nag képp ku ko takk. ket. Euh, ak gàllankoor bu mu mën di doon. loxo bu bënn. wërsëg moom lu ñëw day des ci sa loxo. bayre nag moom macha allah. tayit kaaraange la. lii ak xob bi ma tudd tudd léegi ñoom ñaar ñooy ànd. képp koo xamante ne bii am nga sunu bu jaaro moo xam bitim réew nga nekk di liggéeyal ab tubaab wala sa patron ak ku mën di doon mu lay bunu xatal wala nga bëgg ñu yokk sa fayoor ak lu mën di doon ñëwul ma jox la jaaro bi jaaro bi nag moom caaxaan doxut doxut ma jox ko nit ndax ci fu metti lan ko fu metti lu metti lan ko amee tey liggéey bi dafa metti lool ko alal taxul nit am ko. daraja taxul nit am ko lu tax. xam-xam la. ni gis nit ki kenn ku ne la la yàlla cërale ci àddina. Mm-hmm. da koy nangu te gëm ko te bëgg ko. waaw mm-hmm. ah, loo barilee barilee bari barilee barilee. Mm-hmm. wallaay naasim soo wut takk sama jaar doo ko takk. loo néew la néew la néew la soo war a takk sama jaar da nga koy takk. soo yoroon ay millions soo ko takkee da nga nekk milliardaire. Oh. famille boo bokk. société boo bokk. xalaa kulli xaarin da ngay yilif mais kenn du la yilif maa ko wax jaaru bi góor doge takk jigéen doge takk waaw lépp nag la ndax ñun alxuraan mooy suñu lépp waaw ci la ni ñaan itam adduuni a astajib lakum waaw suñu a ko wax waaw te kenn moomu ko itam waaw kon nag ñun fi ni mën a dimbale doomu aadama yi mooy lu ñu xam ci xam-xam ñu ñëw partage ñoom waaye jaaru daal moom mi nii macha allah sànq maa ngi si doon euh, dugg naam li ma koy faral di waxtaan man ak yow dañuy bëri lool loolu ci combat Modou ak Ama Baldé naam nag doo focus trop trop trop ci wàllum làmb waaye am nga loo ma ci waxoon ma bëgg ko partager ak sénégalais yi euh, Modou Lo Ama Baldé ñu ciy tënkal Cheikh bi. man sax duma faral di wax ci làmb. Mhm. waaye su ma gisee njariñ ci ñoom ñaar mhm. dama koy wax. su ma ci gisee lu ràññee mm-hmm. dama koy wax ndax ay jullit lañ mm-hmm. te jullit jullitee mbokkam waaye Modou Lo mm. jekk nañ ko ci gàllaaj mm. waaw lii maa ko mm. jekk nañ ko te nag lu wert doo nga koy mën a dindi wert bari façon mm-hmm. soo ko defee li nga koy def ba yëkkati ko toj ko mm-hmm. Mm-hmm. lépp loo xamante ni bii ne nekkoon na ci moom mm-hmm. day waaw waaw kii Modou Lo dama jekk noon ko ci gàllaaj te lu weer donc mën a dindi doon di bari nay façon mais su gis nga kii ma yor ñëpp xam ne ne loo fi man di def loo fi mën def ak lu mën di doon hmm. yemel ma ko ci mënuloo de bëgg dindi ci lu nekk ci doomu aadama hmm. du fanaan ci moom moom xaal mi waaw ci combat mënuloo Ama Baldé moom hmm. xam naa ne jekku nañ mënuloo jekku gu wér lu bett rek koy dindi eh, waaw man sax daanaka li ma la wax léegi rek dama ci ñëw ngir dimbali rek te yàlla tax mais dawuma faral di wax ci làmb te ñaareel bi xaal moom xaal mii lépp lu waaye di tàmbali mhm. te munta yegg moo xam kër la mhm. dangay gis koo xamante ne bii ne fondation vingt ans da koy am su ma fi defee li ma fi def ba nga suul ko ci kër ga mhm. loo tàmbalit day yegg lii maa la ko wax ci xaal mi eh, bi nga xamante ne eh, lépp loo xamante na ko dindi lii mën na koo dindi te lépp na ci alxuraan lay nekk waaw lépp lu nit di tàmbaleeti te te muudre yegg ak dëgër am ca mm-hmm. su ma defee la nga dee ba nga suul ko ci ga mm-hmm. incha allah rabbi loo tàmbalee day yegg li maa ko euh, sëriñ euh, Dias bu Touré la woon borom leer mbokk yi yaakaar naa ne kàddu yi nga xamante ne seqoon nañu ko ak moom am na solo loolu ci njëriñ euh, am nañ mbégte cheikh bi bu baax a baax a baax dalal la ndax saasu ne rek bu ñu toogee ak yow mbégte lay doon si lépp loo xamante ne rek yëkkati nga ko fii ci wàllum xam-xam waaye rawatina ci wàllum njëriñ bi nga xamante ne yaa ngi koy dimbalee askan bi xam naa temps bi xaw nañoo xoj ak it ñi lay xaar bëri na damay profité rek bàyyi la nga joxe dernière kaddu jërëjëf dernière kaddu gi mooy dañuy nan delluwaat ci alxuraan mm-hmm. ndax moo ne na si lu alxuraan ma huwa shifaan wa rahma damaa wàcc siin alxuraan muy saafara ak yërmaane kon nan delluwaat ci alxuraan tappale yi bari na lool waaye nan dellu ci alxuraan alxuraan mën na lépp bàqare banaa si lu mënut amut waaw kon nañ leen góorgóorlu te jaamu ji yàlla te ci njub tey dimbalante suñ ko defee rek lépp lépp lépp dina baax te it lu mën def mm. na ne xel suñuy waajur nañ ci jiital lu mën di def nañ leen ci jiital lu mën def nañ leen ci jiital lu mën def nañ leen ci jiital waaw nañu bàyyi xel suñu njaboot nañ leen yiir nañ leen nañ leen nañ leen nañ leen wutal ay kaaraange nan fexe ba ñuy dund ci dund gu ànd ak ci bu nafsi lii moom maa ngi koy dénk ñëpp di ko laabiri ñëpp te ñu sellal wutin bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam.